alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk ñu xam ne mbooloo mi société bi mën nañoo mucc ci lu baree bari ci ay yàqu-yàqu yuy xew su fekkoonte ne jekku nañu nu ñuy jëfandikoo jot gi ñuy am ndaxte ak jot gu bari jàngoro la joo xam ne dafay rey xel dafay gàllankoor dafay nasaxal kàttanu yaram ndax bakkanu doomu aadama faw mënu la ñàkk yëngutu mënu la ñàkk jëf su fekkente ne dafa nekk ci jot gu bari ay xalaatam dafay mujj nëx ay yëngutoom itam dafay mujj doyadi su ko defee ay jax-jaxee ay xalaat yu jubut ñooy gañe ab xolam loolu mën naa dem ba yóbbe ci ay jëf yoo xam ne sax yu ñaaw la yoo xam ne da ciy jéem a féexal boppam fi tëju gi nga xam ne moom la ko jotam gu ëpp googu tëj moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam yeete woon na ci càggante gi nga xam ne ñu baree baree bari dañ ciy tàbbi ci xéewal goo xam ne suñu borom tabaraka wa taala may na ko jaam ñi ci jàmm ak ak waxtu a defal la ak wér nga ne ci jàmm mu may la itam ak jot moo tax jële ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne ñaari xéewal ñu baree baree bari jëriñoo wuñ ko dañ ko mooy ak wér ak uk jot ñu baree baree bari danañ nekk ci ak wér waaye sàggane ko lañu war a def duñ ko def ba feebar ñëw ñu baree baree bari danañ nekk ci ak jot sàggane ko duñ ca def lañ ca waroon a def ba ak jotali ak xat-xat ñëw moo tax Omar ibn Xataab radiyallahu anhu nettali nañ ne daana wax ne daanaa gis nit mu yéem ma lool ma naw ko lool waaye bu ma laajtee ñu ne ma amul métier nee na day daal di ñàkk solo lool ci samay bët moo tax kon mbokk yi jot gu bari am na yàq yu baree baree bari yu muy jur ba ca jiitu moom dana sabab lu baree bari ci ay feebari xel ak feebari yaram docteur yi saxal nañu ne feebar yu baree baree bari dana juddoo ci ñàkk yëngutu jot gu bari lu mel ne tension dana ci juddoo lu mel ne ay feebari xol lu mel ne cardiaque lu mel ne feebar yuy jàpp ay tenqo lu mel ne rhumatisme ak feebaru sedd yooyu yëpp docteur yi saxal nañu ne jot gu bari dana ko jur comme li nga xamee ne dana jur feebari xel lu mel ne lu dëkk ak xalaat yu bari ak naqari deret yooyu yëpp jot gu bari dana ko yóbbe borom ñaareel ba jot gu bari dana tax nit ki yëg ne moom amul njëriñ ci société bi jàpp ne moom daal dafa mel ne cër bu paralysé boo xam ne mënta produire dara mënta jariñ dara su ko defee loolu daf ko ñàkkaloo personnalité mu mujj doyee di ci boppam jàpp ne moom mënul dara ñetteel ba jot gu bari itam moye la ci moye yi iblis di jëfandikoo pour mën a jax jaxe doomu aadama bi mën a yëngal ci moom bànneex yi nga xam ne dañoo nëbbu ci biiram su ko defee bànneex yooyu daal di mën a rëcc ci seenum nos daal koy mën a tàbbal ci loo xam ne du doon lu ñu gëm ñeenteel ba jot gu bari dana yóbbe ak ndëngate te gu bari gu ñuy gis ndaw yi di ci tàbbi la leen ko yóbbe rek mooy jot gu bari yóbbe leen ci ñuy dugg ci ay njaaxum looloo tax ulamaul ijtimaa muy sociologue yi gis nañu ne barab boo dem soo méngalee crime ya fay am ak bitaala ba nga xam ne moo fa am muy ba ñàkk gaa liggéey na mu toll ñaare duñu sore barab bu la gën a bari chômage ñoo xam ne duñu liggéey bari jot lool crime yi itam foofu lay ëppee ñaar yooyu ñooy faral di ànd juróomeel bi jot gu bari dana sabab tabbi ci ay bàkkaar toog di xalaat xalaat yu jubul toog lekk ci mbir yi nit ñi di ca wax di leen jëw ak di leen rambaaje loolu lépp la koy yóbbu nit ki rek mooy jot gu bari kon nag mbokki jullit yi way jur yi war nañoo jëlaat kon seeni responsabilité rawatina ci jamono yii nga xam ne dañ cee toll wax ne ak bër la ñu baree bari jàpp ne kon xale yi bu ñu jógee ci école yi dañ leen a war a bërgël mel ne dafa am waxtu woo xam ne po ak caaxaan dañ ko cee libéré def cee dagan wala moom rek sax moo ca te fekk na waxtu julli lépp a seer lu mu jógee lu dafa war a dem ci leneen kon way jur yi nañ jël seen responsabilité xam ne doom yi njaboot gi yàlla daf leen koo dénk sàmmloo leen ko wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen see fegal seen bopp safara waaye fegal ko itam seenu njaboot ñu jële ci abdullah ibni omar radiallahu anhuma mu ni dégg na yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te ku ñu sàmm ku nekk nag danañ ko laaj lam doon sàmm danañ la ca laaj ñaar mooy réer ak róor réer li nga doon sàmm mbaa réerul li nga doon sàmm mbaa ruurul sàmm ku nekk danañ la laaj ñaar yooyu mu ne imaam muy njiit li nee na ab sàmm la ci njaboot gi nga xam ne moom la jiite waaye boroom kër bu nekk itam ab sàmm la responsable la ci njaboot gi nga xam ne moom la yilif ci biir këram mu ne waaye jigéen ji nekk ci biir kër gi moom itam ab sàmm la ci biir kër googu lam fa war a taxawee ci wàllu sàmm njaboot ga danañ ko ko laaj bu ëllëgee mu ne ki nga xam ne sax dañ koo jël ci kër gi muy liggéey wala ñu jël ko feneen alal jañ koy liggéeyloo ab sàmm la ca danañ ko ko laaj bu ëllëgee mu ne daal ci tënk kon kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la danañ ko laaj lam doon sàmm bu ëllëgee yu jële ci abu xurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne amul doom juy judd lu dul ne judd na ci mën a baax kenn judduwaale ju ñu préparé la pour nga bon kenn ku ne da ngaa judd pour man a baax mu ne way jur ya nag benn ñoo koy def yahood ñoo koy teg ci yoon woo xam ne même bu tuddul ab yahood it jikkoy yahood la yor ñoo koy def ab nasaraan bu tuddul am nasaraan itam continuer tuddub jullit waaye dem na ba yor seen jikko dem na ba yor seenu doxalin bu boobaa moom ñoom a yem wala ñu def comme majus mu ne comme ni nga xamee ne bayi ma bu juree doom doom ji dañ ma sëkk kenn du gis mu manqué naka noonu doomu aadama bi bu juddoo lépp ma lu ca xew gannaaw bi rek ña ko ñoo ko ca def wala ñoo ca sàggan yonent yi alayhimu salaatu salaam ak nit ñu baax ni dañ daan yittewoo lool xéer lool ci seeni doom baax di ca sonn lool waaye di ko ñaan suñu borom tabaraka wa taala moo tax suñu borom ñu ñuy li ci alquran ci ibrahim ak yaqub alayhim asalaatu wasalaam ñu doon dénk seenu njaboot di leen wax ne inna allaha astafa lakum diin fala tamutunna illa wa ñu ne waay ngel la waay doom yàlla de diine la leen tànnal leneen lu ngeen tànn yéen ko tànnal seen bopp te tànnub yàlla moo gën yàlla li mu la tànnal loola baax ci yow te doomu aadama yàlla tànnalu ko dara lu may diin moo tax ñu ne ngalawaay bu leen faatu lu may nekk ngeen ay jullit loolu tam ne ku ko bëgg a sa doom ci tànn boobu nag diine dañ koy jàng waaye doo du doon lu ñuy doon ci cosaan wala lu ñuy doon ci baax wala lu ñuy doon ci milieu ba nga dëkk ku bëgg say doom am diine da di jàngal diine kon soo ñu nekk ay jullit da leen koy jàngal waaye du doy rek nga ne ab jullit laa kon ñi ma jur ñëpp ay jullit lañu naka noonu nuux alayhi salaam xamoon xam ngeen ne xeroon na lool ca doomam ja ba mu wuuteeg moom ma nga naan ko wala takun ma alkaafiriin nga la waay doom bul ak yéefar di ko te ña doon alku na waaye doomam la ci tànn woo ko mbooloo ma ko weddi woon kontar ko bañ a dugg ca gaal ga di alku mbooloo mu bari la ñu ëpp sax ñi ànd ak moom waaye doom jëlee na yaa bu yi irkam maana yow doom kaay dugg ànd ak ñun ci gaal gi wala takun ma alkaafiri nga gis yittewoo ji mu yittewoo doom ji afta bi mu xamee ne sax weddi na ko ba noppi waaye teewul muy sabab di ko jéem a baaxal ba tey nga gis Sakariya alayhi salaam yéex a am doom lool di ñaan fa habli min ladunka waliya yàlla yàlla na nga ma may doom joo xam ne yarisu nii wa yarisu min ali yaqub waaye kat du n'importe quel doom wajalhu rabbi radiya yàlla doom ja nga may may yàlla na ko doom ju baax kon bëggoon nañu doom waaye du doom rek di ko bàkkoo naan am na ay doom waaye doom yiñ bëgg mooy doom yoo xam ne yu baax la ñuy doon yu yàlla gërëm la ñuy doon naka noonu nga gis luqmaan muy waar doom ja ne ko day yaa bu nay laa tushrik billah gis nga li gën a garaaw muy bokkaale te ñu baree baree bari sax danañ yar seeni doom ci yarub teggin nooy ci jëflanteeg nit ñi waaye pas-pas bu baaxul la ñuy yor te loo mën a def ci nit ki teel pas-pas bu baax lalu ko loola saxu ko dafay jóge wat ndax pas-pas mooy liy conduire kon pas-pas bu wér bu ànd ak taw bu tawxid loolu lañ war a jëmbat ci xale moo tax mu tàmbalee lam ko njëkk a dénk laa tushrik billah bul bokkaale yàlla ndax inna shirka bokkaale kat la zulmun azim tooñ le goo xam ne gu rëy la suñu borom tabaraka wa taala nett ñu ba tey ki nga xam ne dañ koo yar ci lislaam ba mu màgg ba nekk mu kallaf hatta ida balaxa asudda wa balaxa arbaina sana lu wax rabbi awsi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday wa an amala salihan tarda lu mu ca teg wa aslih lii fii zurriyati inni tubtu ilayka wa inni min al muslimin jullit bi nga xam ne yar nañ ko jaarale ko fi ñu ko war a jaarale su màggee ba nekk mu kàllaf bokk na ci soxlaam ba gën a rëy moom itam yàlla baaxalal ko njabootam moo tax mu ne wa aslih lii fii zurriyati na nga ma yéwénalal baaxalal ma sama njaboot inni tubtu ilayka wa inni min al muslimin borom bi tabaraka wa taala dellu tudd ci melokaani jaamam yi nga xam ne da leen a gërëm ne seenu ñaan day bokk na ca ñu naan yàlla yàlla na nga nu may ci sunuy soxna ak sunuy njaboot xol bu set rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama loolu nit ñu baax ñi borom bi tabaraka wa taala gërëm nee na loolu danañ ko ko faral di ñaan ci seenu ñaan la bokk yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne way jur day defalul doom lu gën yar ko yar bu rafet ñu bari dañuy jàpp ne doom ah fàggul ko alal wala teg ko ci yoon yoo xam ne dana mën a am alal loolu mooy baax ci doom mooy taxawu njaboot waaye baax dëgg dëgg dëgg li nga xam ne doom jur dana ko ko defal mooy yar bu rafet ndax ab alal lu mën a doon day jeex boo wàccoon tey ci réew mi boo yóbbaalee alal doom nga yaakaar bu jeexee nga tumurànk waaye su fekkee yar bu rafet nga yóbbaale mën nga faa am ku la def doom mën nga faa am ku la jox kër mën nga faa am ku lay dundal mën nga faa am ku la wutal looy liggéeyee lépp loo ñàkkoon fa nga jógee mën nga ko faa am ngir yar bu rafet bi nga àndaale moo tax kon capital bi gën a rëy boo xam ne dees na ko waajale nit mooy yar ko yar boo xam ne bu rafet la ñu jëlee ci Jaabir ibnu Samura mu ne yonente bi alayhi salaatu wax na ne nit ki di sonn di yar doomam coono ba mu cay def ci ay wax ak jëf nee moo gën muy sarxe alal ju baree baree bare jël alal di ko sarxe alal jooju nga dépensé waat ko ci yare ko sag njaboot defare ko ko loolu moo ëpp sax tuyaaba bokk na ci responsabilité yi nga xam ne nag way ak kilifa yi war nañ koo taxawee ci njaboot gi rawatina doom ju jigéen doom ju jigéen dañ koy teel a yar ci ak fegu ci ak colam ak i waxam teel koo yam yar ci kersa ndax borom bi tabaraka wa taala wax na ne waxal ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi nañuy damm seenu gis te damu gis foo ko fekk kersa lay àndal nañuy sàmm seeni pëy te tam bu ñu di feeñal seenu taar lu dul la nga xam ne moo ca mënta ñàkk feeñ ñu jëlee ci umu salama radiallahu anha mu ne bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee li mu wax ci gàttal yéere ci ne dañu war a gàttal ak col nee na umu salama dafa nag waaw kon nag jigéen ñi moom muy def mu ne ko ñoom de nañu guddal seeni yéere lu tolloog sibra sibra mooy lii diggante ñaari baaraam yi mu ne ko ah loolu de bu ñu ko defee seeni ndëggu dana feeñ mu ne ko kon nañ ko guddal lu toll de ziraa ziraa mooy li tàmbalee ci concali ba ci cati baaraam yi xam ngeen ne yooyu jigéen ñu yaroon ci ba ndëggu luy feeñ rek ñoom ñu jàppe ko danse ba di ko jàmbat ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne kon nañu diri seeni yére loo xam ne dana toll zira loolu wóote na ak li nga xam ne moom la ñuy gis ci jigéen ñu baree baree bari ñuy tuddoo lislaam ñu jëlee ci Aïcha radiallahu anha mu ne Asma bint Abi Bakar mas naa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sol yére yoo xam ne dafa xaw a yaraax bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam gisee dafa dal di dumóoyu wañ ko gannaaw dal di ne ko yaa Asma xanaa xamoo ne jigéen su xasee gis baax mat mu kallaf kenn waratu la gis ci moom lu dul lii ak lii junj ay loxoom ak xar kanamam junj xar kanamam ak ñaari téqam ne ko loolu dong lañ war a gis ci moom ñu jóge ci abi xurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne ne am na ñaari façon yu bokk ci safara ñaari façon yu nit yoo xam ne waa safara lañu mu ne moom du leen gis maanaam du leen fi fekk nit lañ ñoo xam ne nee na dañuy yor ay yar yu mel na geeni nag di ko dóor nit ñi ak jigéen ñoo xam ne nee na dañuy woddu te rafle dañuy wodd mooy am nañ ay yére am nañ luñ mën a sol ñekkuñu dañuy rafle ndax lañ war a sàng sànguñu ko koo xam ne sàngoo li nga war a sàng sab jumbux nekk ci biti ku xamul bu gisee danaan kii de xanaa daa amul bu mu jot daa amul lu mu jënde mu mu ko jot moo tax muy sol tuuti lii te fekk na am na ko mu ne ñooñu foo leen fekk dañuy jeng jëm ci lu bon keneen ku leen toppit ñu jengal la ca yóbbaale la ca seen bopp ya lañ cay teg nee na day kaawe ba mel na jigéen ñi jëlee gëléem mooy sangu mees yi ngay gis yoo xam ne bopp boo xam ne lañ ko sëf na mu diise borom fu mu toll ma ngay wiccaxu buy wax mbir maa nga ko lëng mën ay bëtam sax léeg-léeg du gis loolu moom misaal loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ñooñu du ñu tabbi aljanna waxuma la tabbi aljana waaye ne te xetug aljana sax du leen xeex xeeñ te nee na xetug aljana kat da nga daan diggante bu soree soree soree soree soree mu lay xeeñ kon ñooñu nañuy soree aljanna kon jéggi na day wal iyaasu billah yàlla jàlla musal kenn ku nekk war ngaa yore sa njaboot itam ngir ñu bañ a bokk ci loolu te lii yonente bi alayhi salaatu wax ko xool ci société bi ñu ngi koy gis mu mat sëkk kon nag war dañoo dawal njaboot gi loolu njaboot kat loo ko mën a defal te tegoo ko ci yoon bu koy musal ci safara ni ko borom bi waxee xoo anfusakum wa ahlikum naara defaloo njaboot googu dara ndax safara la waaye man a am bis boo jàkkaarloog moom ñu la laajoon loola laajaat la ay junneeb tegal la ca tegal la ca lépp da ko joxe ngir mucc ci safara walaw anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu maahu laftadaw bihi min suui alazabi yowma alqiyama borom bi nee na ñi tooñ seen bopp bis bu ñu jàkkaarloog safara bu ñu amoon adduna ak li ci biiram ñu jël beneen adduna tegal leen ci bu ñu leen ko laajee lépp danañ ko joxe ngir bañ a tabbi safara kon nag xam ngeen ne adduna kon wutub taar wala wut daraja wala wut alal ba def lu lay tabbal safara loolu jëru ko am xel mu mat fekkewu ñu jële ci asari radiallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salatu wax na ne bépp jigéen boo xam ne da ngaa laal parfum wala loo xam ne daal dafa yor xet gu neex romb aw nit ngir bëgg loolu nga xeeñ xeeñ leen nee na yow de yaa ngi njaaloo attam njaaloo nga yor moom yonente bi alayhi salatu wasalaam mu delloo wax ne jëpp jigéen joo xam ne laal nga cuuraay wala laal nga daal loo xam ne dafay xeeñ nee na kon day bul julli si gee bul julli si gee xam ngeen ne julli ji ni mu foore ak ni amee tuyaaba lay tax kon nag waxuma laa nag ka ko laal ba noppi di génn di doxi doxi boo xam ne eh, du lu borom bi tabaraka wa taala gërëm du lu yonente bi alayhi salatu wasalaam santaane ndeeg julli gi nga xam ne mooy farata julli jigéen moom lañ koy tere ngir loolu muy xeeñ kon rawati nag nag bu fekkee fa mu jëm eh, feneen la yu jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne bokk na ci li nit ñi dese ci waxi yonent yu jëkkee ne nit daal bu amul kersa lu ko neex def loolu mooy li ñuy gis fi rawatina jigéen ñi ñàkk kersa gi moo tasaaroo lool lool lool lool moo tax ñu mën a def lu leen neex suñu seetloo taxawaay ñàkk a faale bi nga xam ne dañ koy seetlu ci way jur yu baree baree baree bari ci yére yu xat yi ñuy gis seen doom yi di ko sol rawatina jamonoy tàngoor yii ñu jàpp ne yére yu mel noonu la ñu war a sol yére yu xat te gàtt yoo xam ne sax du xaajale biir ba yoo xam ne léeg-léeg benn loxo ba day nekk ca bitti ah boole koog di dox ci mbedd yi guddeeg bëccëg boole koog dem ci place yi di ci géej yi di fas jaxasoo góor ak jigéen ñi di fa yendu boole koo défier ñëpp ci lépp loo xam ne lu ñu miinoon la ci aada ju baax sax waxuma la diina waaye ci wàllu aada sax lépp dañ ko contre dañ ko défier loolu nag di ko gis way jur ya koy seetaan jàpp doom yooyu teg leen ca kaw duñu leen ca wax lenn li muy tekki mooy way jur la yoo xam ne dañoo summiku ci responsabilité bi leen borom bi tabaraka wa taala gàlloon ci seen njaboot ak lu ñu mën a daj ca njaboot googee sànq nañu njaboot googu bu ëllëgee dañ ko layoo ci seen kanamu borom tabaraka wa taala ab jël nañ ci abdullah ibn omar radiallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne ne ñett yàlla araamal na ci ñoom aljanna mudd mirul xamri ku dëkkee naan sàngara ab solaab boo xam ne du xippi ci naan sàngara wala koo xam ne dafay dënge ay way juram wa dayuus allati yuqirru fi ahlihi alxabas ak nag ku ñàkk a koo xam ne du sàmm ak njabootam ak njabootam gu jigéen di ànd ak góor ña di dugg ak a génn ak a fanaan àll amu ca benn soxla du ci yëg benn fiir du ci yëg benn ñaaw njort ku mel noonu la ñuy tudde day yoos ku mel noonu la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne eh, aljanna eh, suñu borom tabaraka wa taala araamal na ko ci moom suñu seetloo jot gi nga xam ne xale yi dañ koy dund ci vacances yi ñu nekk ak li mu leen di yóbbee ci li ñuy tabbi ci ay njaaxum yoo xam ne kat la cay jug doon rafet lu lu rafet ak jeexal gi ñuy jeexal seen waxtu yépp ci mpo fi mu ne terrain boo dem bu nekk ma nga fees dell ndaw yoo xam ne ca la ñuy yënd guddeeg bëccëg bu ñu ci jógee guddi yi ñu nga ci animation yi ca musique yi bu ñu ci jógee ñu nga ca géej ga loolu juróomi ay jullit nar cee jeexal seen vacances bi yépp mel na dañoo amul leneen lu ñu mën a def wala day waxtu woo xam ne yàlla daf cee daganal po po moom borom bi tabaraka wa taala daganul ko benn waxtu wa ma xalaqna samawati wal wa ma baynahuma laibin nee na bindoo asamaan seeg suuf law aradna an nattaxisa lahwan lattaxasnaahu min ladunna in kunna faailin borom bi nee na bu ma soxla woonam toog dinaa wut ñuy fa fi man ndax doomu aadama lu man mën malaaka moo ko ko daq gis ngeen bi mu soxlaa julli am na malaaka yoo xam ne ñoo nu daq julli foofu lu mu soxla ci jaamu yàlla rek malaaka yoo xam ne ñoom loolu lañ dëkke nee na su soxla woon fo dana bind malaaka yuy fo waaye borom bi tabaraka wa taala foluwut afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaun ndax da ngeen a jàpp ne dama leen bind rek ngeen fo wala ngeen jàpp ne du ngeen jël si man kon pom yi nga xam ne dañ koo ubbi wax ay nawetaan ak ay yu kenn xamul yoo xam ne ci la xale yi di jeexal seeni waxtu waajur yi di seetaan loolu ak ay musique yoo xam ne kenn du tala jaamu yàlla koñ ba nga dëkk foo toll guddeeg bëccëg te ñu koy def di ay jullit du ñuy doxandéem du leneen ay jullit lañu yoo xam ne seeni bàyyi da ngay dajeeg ñoom ci jàkka yi léeg-léeg ñuy seetaan lu mel noonu loolu jullit ñu war dañ cee taxawaat bu baax a baax a baax mënoon nañoo soxlaal waxtu yooyu ci jàngaloo xale yi alquran rawatina gannaaw da nga bi mu waroon a bu école tëjee gën gaa kon man nga ko yóbbu bu mokkal dara ci alxuraan jàng dara ci diineem wala sax mu jàngi dara ci métier ndax kenn xamul li muy jàng dara ci am liggéeyam déet bu ñu gisee lu baree baree bare xale bu ñu essayé ci seenum jàng daal di nekk ñuy taxawaalu mooy leen benn métier jàngaluñ leen benn coono dañoo gëm ne rek ñoom ci ay bureau i lañ war a nekk saa bu loolu noppee am kon ñoom amuñu liggéey bari waa nga koy wax ne liggéey te ko wër liggéey kenn xamul lu mu toll waaye yooyu daa jafe ne moom jomb na ko dafa jàpp ne moom liggéey yooyu jomb na ko du liggéeyam loolu liggéeyu baadoola te te moom du baadoola su ko defee nag kon di leen jàngal ay métier yebal leen ci atelier menuisier yi wala atelier tailleur yi wala menuisier métallique yi wala sax yóbbu leen ca mbokk yi ca kaw ga ñu gane ji seen mbokk yi ca kaw ga ànd ak ñoom ca tool ya xam li réew mi dund parce que xale yi fii nekk Dakar xamuñu xew ci réew mi dañoo jàpp ne réew mi dafa développé réew xam ne réew mi solo sori na développement lool loolu nag di ko yóbbu di fekk seen way jur ya foofu seen mbokk ya foofu di ànd di dund ñoom ba suñu leen gisee duñu leen xeeb moo tax fi mu ne ku ca jógee ca kaw ga ñu jëgane si fii xale yi fi ne dañ lay xeeb dañ lay seexlu sax dañ lay xeeb di la seexlu ndax jàpp na ñoo la gën a kawe ñoo la gën te fekk na kat yaa ngi ñoom a tolloo dong kon di yebal xale yi foofu lu baax la jigéen ñi itam ñu di leen dugal ci waañ yi di leen tàggat ci yor kër parce que itam da nga ci gis jigéen ju ba ami diplôme waaye bu sëyee rek bootul fa la sëy bay jaare dara ci doxaliinu kër du ko man ndax kër loo am am am ay mbindaan ak ñu lay taxaw ak lépp am na session boo xam ne yaa ko war a mën a doxal ci biir kër gi lii lañu war a jënd lii lañu war a seetal lii lañu war a def loolu moom fokk nit ki da koy jàng waaye am mbindaan mënu koo yoral nit kon jigéen ñi nañ leen di yóbbu ci seen wetu yaay wala sax yóbbu leen ca kaw ga ñu rooti ca teen ya di xam le xew ci réew mi ndax réew mi kat dañoo defee ne dafa naat wala dafa développé loolu xale yi jàpp jàpp ne la waaye fekk na sore nag moom lool ibadallah yar doom yar bu rafet njariñ yu bari dana ci juddoo ci àdduna ak alaxira yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne doomu aadama su faatoo jëfam yépp dana dagg ba mu des ñett sadaqa jaariya sarax boo xam ne daf ko fee bàyyi muy continuer nit ñi di ko jariñoo muy alwaqf wala xam-xam boo xam ne dañ koy jariñoo muy xam-xam bu am njariñ wala boog doom ju baax ju koy jàngal te boo ko seetloo yooyu li ci gën a mën a sax sax gën cee mën a wéy mooy doom ju baax moo tax am na ku wax ne daal dajale ñett yépp jafe na waaye nee na perte ñett yëpp itam nag nee na ñàkk sens dëgg la amoo sadaxa jaaree bàyyiwoo fi benn sarax bàyyiwoo fi benn xam-xam buñ mën a jariñoo bàyyiwoo fi jenn doom ju baax jooya ndax bàyyi nga fiy doom mais wala dul saalix la wax boo leen yarut bañ nekk doom ju baax doom yooyu gàcca lañ lay dollee ki bakkaar ndax boo fi jógee même la ñuy def ciy bakkaar te yaa leen tegoon ci yoon woowu da nga cay am sa responsabilité moom la borom bi naan li yaxmiloo awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari alladina yudilloonahum bi xayri ilmin képp koo xam ne yaa ko réeral yaa ko teg ci yoon woo xam ne moo tax mu réer lam cay def ci ay bakkaar bu ëllëgee da nga cay am sa wàll li yaxmiloo awsaarahum kaamilatan wa min awsaari alladina yudilloonahum bi xayri ilmin ala saa ma yasiru kon nag nañ fexe bàyyi fi doom ju baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dellu wax ci addis boo xam ne Abdullah ibnu Burayda moo ko nettali doon wax ci mbirum ku jàng alquran mu ne kooku day bu ëllëgee kooku jàng alquran ñu yar ko ci mu ne bu ëllëgee dañuy teg ci kaw boppam taajul waqaar benn ndëpp boo xam ne ndëppul wurus la bu rafet mu ne nag ay way juróom ñu woo leen wadde leen ñaari col yoo xam ne bu ñu calculer adduna li ci biiram mënta jënd ñaari col yooyu su ko defee way jur ya laaj na waaw ñun fu ñu jëlee li nun loolu def ñu ne leen bi axsi waladikum alquran jàng alquran ga seen doom ja jàngoon alquran ci la leen borom bi tabaraka wa taala terale li kon nag xam ne mbokk yi doom lu nit di investir moo ca gën jar na sacrifier li nga am ci alal lépp baaxale ko sa njaboot waaye kenn du sacrifier sa njaboot di ko wute alal ndax am na gi si biir képp ku fi jógee dem daanaka li nga fi dese ci li ñu lay tudde mooy doom leneen loo fi amoon keneen sa kër kër diw la woon la ñuy wax ba ci sa jabar sax jabari diw lañ la jabari diw la léegi jabar diw la woon la ñuy wax ma nga ca loxoy keneen bu dee sa jëkkër naka noonu moom itam yor na yeneen jabaram kon nag li nga fi bàyyi loo xam ne moom ba tey moom lañ lay askanale mu desal fi saw tur di def tuyaaba nga di ca jot loola mooy doom kon nag nañu sonn ci njaboot gi bu baax a baax rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in